tasnim online moo leen di may jotaayu koor alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa saxaabatihi wa manwala mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci koor gi di ñaan yàlla mu nangul ñu nangul leen ñu ngi dellusiwaat ci jataayu xadis yi ñu bokk di ko am fii ci dégg dine ci weeru koor gi tey ñu jël xadisu abi hurayra radiallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره, ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من والله الله أمركم جيلا رواية مونة وأن تطيعوا من والله الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ولا إضاعة المال وكثرة السؤال léegi xadis boobu bu fekkente ni seetlu nañ ko dañuy gis ne ba léegi ci liñ doon wax ci lu jiitu ci la jëm mooy wax ci li nga xamante ni bi mooy njariñ importance tawxid muy wéetal yàlla subhanahu wa taala nga xamante ni moom mooy fondement wu diine ndax ci xadis bi xadis abi hurayra yonent bi alayhi salatu wasallam dafa wax ne inna allaha yarda lakum thalathan yàlla gërëmal na leen ñetti mbir ñetti taxawaay ñetti jëf ñetti jikko yoo xam ne yàlla gërëm na ko bëgg ngeen taxaw ci bëgg mu nekk ci yéen wa yakrahu lakum thalathan waaye tamit bañal na leen ñetti mbir yoo xam ne bañ na ko ci yéen fa yarda bu an taabuduhu wala tushriku bihi shay'an di leen yàlla gërëmal ci ñett yooyu li ci jiitu mooy ngeen jaamu ko te bañ koo bokkaale ak kenn te bañ ko bokkaale ak lenn loolu mooy li jiitu kon nga gis ne bi muy wax yi yàlla gërëm mu war a nekk ci jullit bi nga xam ne day xool li yàlla bëgg ci moom mu jëm koo tax mu jëm cee taxaw ci kémtalaay kàttanam lim ci jiital mooy wéetal yàlla mooy tawxidullah mooy màggal suñu borom subhanahu wa taala jox ko cëram mooy jaamu yàlla te bañ koo bokkaale subhanahu wa taala loolu mooy li jiitu lu war ci lu jàmbi bi war a taxaw benen bi ci des moy wan ta'tasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu ngeen jàpp ci buumu yàlla gi yéen ñep te baña takaliko muy dina yàlla subhanahu wa taala waye lolu pour mu mën am faaw wétal yàlla gi fay jitu muy tawhidullah ndax lenn moy bolé waye lu bari day takalé te lenn li moy tawhid moy wétal yàlla bu fekke yàlla lañu wétal mom rek lañu jappé yàlla mom lañu jox sañ-sañ bi mom lañu jox cër bi lolu mo ñu mën bennale ndax boobaa ñun ñëpp mooy doon suñu delluwaay mooy doon suñu sukkandikukaay mooy doon suñu wéeruwaay mooy doon suñu kilifa te comme lenn lañu toppaloo boobaa kon ñun ñëpp dañuy daal di topp ndax bu ñu bokkee kilifa te kilifa gi am benn ndigal goo xam ne ñun ñëpp moom la boole jox kon boobaa ñun ñëpp ci lenn lañuy ñuy bokk nekk waaye bu fekkente ni kilifa yi dañoo bari ah boobaa li ñuy nekk tim day bari rek bu fekkente ni kilifa yi dañoo bari bu boobaa faaw li ñu nekk day wute ndax kenn ku ne la ngay digle ak li sa morom du digle du nekk benn loolu mooy wane li yàlla subhanahu wa taala wax ne law kaana fihima alihatun illa allahu la fasadata bu fekkonte ni asamaan ak suuf am na ñeneen yeneen yàlla yu fi nekk yu dul yàlla kon dina yàqu dina yàqu mooy ne kon fi yàqu gi njëkk a tàmbale laata sax muy ñëw ci indi dysfonctionnement ci nit ñi li ñuy def wute geeg yooyu ndax loolu day yàq ndax anarchie lay jur bu fi yàlla yu bari nekkee ki ne defal lii ki ne defal lii ki ne bàyyil ki ne defal problème lay indi waaye fi muy njëkk a tàmbalee fi yàqu tegi di njëkk a tàmbalee mooy ci doxinu asamaan ak suuf ndax doxinu asamaan ak suuf benn dysfonctionnement benn problème amu ci lépp ci benn yoon lay jaar day wane ne kiy digle ci li asamaan di jaar ak ni suuf di doxeek ni nga xamante ne bi loolu la seen bépp mbir di demee kenn la te mooy yàlla suñu borom subhanahu wa taala lahu mulku samawati wal ard mooy ki moom nguuru asamaan ak suuf amul kenn kuy ñëw di dugal waxam ci asamaan ni muy doxee fi weer wi jaar fi jant bi jaar ngelaw li ni muy ñëwee ndox mi fi mu war a yem amul keneen moom yàlla subhanahu wa taala lépp ci moom lay dellu moo tax lépp jaar ci yoon ba fi nit ñi nekkee ba léegi àdduna bi di nit ñi nekk fi di dund di dox ngelaw luñ soxla di ñëw tàngoor yuñ soxla di ñëw lenn lu ci nekk ci limite bi nga xamanteni bi la ko yàlla subhanahu wa taala yamale wa in min shay'in illa 'indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum illa bi qadarin ma'lum wa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar loolu mooy yamale ak tollale gi yàlla di tollale lépp mbir bam nekk lu ñuy jariñ te duñu lor ndax li ñu fi def li ñu fi defal lépp ci njariñ lu ñu mën a lor la saa bu ëppee wala mu néew lu tuuti rek bu ci ëppee wala mu néew ci daf ñu lor waaye li ko yemale ba mu nekk njariñu kese loolu mbiru suñu boroom la mbiru yàlla la noonu nag mbir yi nekkee lu nose lépp jaar yoon am équilibre ci ne àdduna bi tëddee ndax lépp ci ndigalu yàlla rek la tegu naka noonu tamit mbiru jaam ñi pour mu mën a yëwan faw benn kilifa rek ne ci faw benn kilifa gi nga xam ne mooy kilifa gi kilifa gi xaqan di yàlla mi nga xam ni moom lañu war a jox cëru kilifa ñu déglu ko ci seeni mbir mu digal leen tere leen bu ñoom ñépp sukkandikoo ci loolu boobaa dinañ bennoo te loolu mooy واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا غن sant bi mi wax واعتصموا waxul bel habla japp leen ci bum gi ndax boba ku ne ne bum gi lay wax ku ne ne bum ge lay wax waye daf ne bum ne ku yalla gi mu delo ko ci bopam mooy kon du bu ñuy bu ñuy bu ñuy jaawale du bu ñuy jaawale benn lay doon ndax mooy bi yàlla reconnaître mooy bi jóge ci yàlla jaar ci yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalam amul beneen buum buum boobu la muy diineem ji nga xam ne moom la wàcce jox ko ko reconnaître ko ne wa raditu lakum lislaama diinan bu ngeen ci jàppee lenn la lenn loo xamante ni bi yéen ñëpp dangeen cee jàppandoo da leen di bennale du ngeen tàqalikoo kon cosaanu ndakate bennoo gi mi ngi dellu ci cosaanu bennale yàlla muy bennale yàlla mooy wéetal yàlla kennal yàlla loolu bennale ñu ñun bu ñu amee jenn yàlla loolu ngir ñun ñu nekk benn day yomb ci ñun bu ñu amee benn yàlla bi nga xam ne moom mooy yàlla ji yàlla xaqan ñu jox ko ciru yàlla moom képp lañu jox ciru yàlla boobaa mbir yi dina yomb te loolu moo ñuy jural tamit yonent bi nga xam ne moom la yónni ci ñun di doon doon kenn doon kenn gi li muy tekki mooy cëru yonent bi nga xam ne mooy nangul gu mat sëkk ci diine goo xam ne amul loo ci sikki sàkka ci yaa ayuha alladina amanu atiu allah wa atiu rasul yéen ñi gëm yàlla topp leen yàlla topp gu mat sëkk topp leen yonent bi alayhi salatu wasalaam topp gu mat sëkk cër boobu yàlla jox yonent bi ci ñun ci topp gu mel noonu li tax tamit nit ki mën koo jox yonent bi mooy mu jox yàlla cëram ba noppi bu ca jógee ci lay jox yonent bi alayhi salaam cëram cër boobu boo ko ko joxee muy benn yonent tamit nga bennal yonent bi ci cërub yonentam bi ko yàlla jox ak topp gi nga koy topp boobaa diine bi benn rek lay doon waaye foo gis xàjjalikoo geeg xiiroo geeg ŋaayoo geeg pàcc pàcc yi dañoo bennalul yàlla nañ ko war a bennale bennaluñu yonent bi alayhi salaam nañ ko war a bennale ndax ni ñuy bennale yonent bi mooy cëru yonent bi ko yàlla jox ak sañ-sañu topp gi mu am ci ñun ñu jox ko ko bañ koo jox keneen waaye bu ñu jëlee cër boobu yàlla jox yonent bi alayhi salatu ñu jox ko keneen mu ñuy sant leneen lu bokkul ak li ñu yonent bi sant dinañu wute ak ña nga xamante ni bi ñoom ñoo nekk ci loolu kon fawu boobaa jullit ñu dañuy wute kon wute beeg tàqaliko bi loolu dong la kon bu waxee ne ngeen jaamu yàlla bañ koo bokkaale ak dara te jàpp ci buumu yàlla bi te bañ a tàqalikoo loolu lu leer la ci ne bu nit ki jàppee ci buumu yàlla gi rek koo du am beneen bi ci des mooy koo xamante ni yàlla dénk na ko seeni mbir mu yilif leen moo xam ci wàllu àdduna la wala ci wàllu diine la ngeen dëggu seen diggante ak moom di wax ak moom dëgg di jëflante ak moom dëgg ci di jéem a yëwanal ay mbiram ndax bu mbiram yewanee ci nim leen jiitee ak nim leen yilifee seeni mbir dafay yëwan yéen itam kon loolu la suñ yonantu bi alayhi salaatu salaam wax mooy te loolu xëy na riwaayatu muslim mi ngi ñëw ci beneen riwaay bi nekk ci as sunan ci ne ki nga xamante ni moom la yàlla jox seen mbir mu jiite leen jiite leen lim tekki mooy jiite leen ci kaw seen diine ndax amrakum mooy loo xamante ni seen mbir la yéen jullit ñi mbiru jullit ñi li koy jiital li koy doxal di ko ñu leen ci jiite mooy diine tegu ci kaw alxuraan ak sunna moo xam boroom xam yi nga xam ne yàlla jox na leen cër ñu jiite jullit ñi te tey daanaka ñoo fi nekk ndax njiit yi nga xam ne ñoom ñoo jiite ci wàllu àdduna sukkandikuwuñ ci lislaam attewuñ lislaam nee nañ seen yoon nekkul ci lislaam li ñuy jiite mooy du diine lu dul diine lañuy wax ne loolu la ñuy jiitee ñoom kon loolu mënta nekk yëfu jullit ñi jiite nañ leen ci nag mu nekk ay nguur yoo xam ne moom lañu fi teg muy doxal mbiru jullit ñi jullit bi mënta ñàkk jëflante ak ñoom kéemtalaay fi ci mën a yem ci ngir sàmm njariñ yi nga xam ne julit ñi faaw ñu sàmm ko ci seen nekkin ak fekk lor yi nga xamante ne bi mën na leen a dal ci seen diine wala ci seen ay bakkan wala ci seen alal ba kem ba kem tiray seen kattan ñu sàmm loolu sàmmonte ak loolu beneen bi ci des mooy jéem a fexe tamit yewanal seen diine ak ñongal ko seen kemtalay kattan ci suufu nguur yooyu donte ay nguur la yoo xam ne lislaam taxawalu ko nekkul lu ne dafay jug ngir sàmm ko loolu nekkul préoccupation boo xam ne da ko yittewoo alors ko nguur ci lislaam loolu mooy objectif principal bi mooy sàmmal nit ñi seen njariñi diine ak seen njariñi àdduna njariñi diine mooy jiitu laata njariñu àdduna sax di ñëw waaye notion boobu nekkul ci nguur yu moderne yi nga xam ne ci wàllu àdduna rek lañ ko tabax waaye lu ci mën a am nit ki xool ki nga xamante ni moom la yàlla jox nguur mu jiite même bu fekkente ni ci wàllu àdduna la mu fexe ba relation dëgg nekk digganteem ak moom te bañ a yàq mais relation boo xamante ni ngir defar ak yëwanal la topp ci kémtalaay kàttanam ci loo xamante ni bi lu baax la ci loo xamante ni dëgg la li ci des mu bàyyi koog suñu borom subhanahu wa taala tey defar tey yëwanal tey defar tey yëwanal di jàngale di yar ak di tasaare lislaam ba keroog yàlla di matal di matal mbiram ba keroog yàlla di def ci julit ñi yëg-yëg ak mën-mën bu ñu taxawalee loo xamante ni ay nguur la yoo xam ne ci lislaam lay sukkandiku loolu yàlla moo xam kañ lañuy dem ba àgg ci loolu waaye liggéey la boo xam ne liggéey bu gudd la boo xam kenn du ko yàkkamti mu daldi jóge ci loolu daldi ne wax ne wa yakrahu lakum mu wax ne leen yi yàlla bañal ñett yim leen bañal qiila wa qaal wa kathrata sual wa idaata almal wala wa idaata almal wa kathrata sual yàlla suñ subhanahu wa taala bañal na leen ñetti mbir ñetti mbir yooyu nga xamante ni suñu borom subhanahu wa taala bañal na leen ko mooy nee nañu nee nañu nettali bu bari nettali bu bari loo xamante du wax ju la wóor mais ay rumeur la loolu julit du ci dox baaxul da koy tàbbal ci ay bàkkaar ndax yonente bi alayhi salaam dafa wax naan iyaakum wa dhann fa inna dhann aklabul xadis mooy tandiku leen wax yoo xam ne ci njort lañ ko teg ndax wax yoo xam ne ci njort la tegu nee na mooy wax ji gën a juumu ji gën a ñàkk tegu gi nekk dëgg ci wax yi kon moytandiku leen wax jooju mu bañoon bañaloon leen mu bañal leen tamit kasarata su'aal laaj bu bari laaj lu ne lu tàbbee ci xelu nit ki rek mu laaj ko am na ñoo xam ne bu ñu gisee nitu xam-xam yaakaar nañ ne lu ne mën nañ ko laaj léeg-léeg sax duñ laaj li leen amal njariñ ñenn ñi dañuy laaj ni pour laaj rek da ngay gis koo xamante ne ci réseaux sociaux yi lay dem lu ñu fa gis yónnee la ko ojo wala ñu woola di la ko laaj buñ la ko laajoon ba pare ñoom seen bopp laaj bi xamuñ luñ ciy def amalu leen exemple buñ ciy joxe gis koo xam ne day seen. benn photo bu ñu def ci réseau sociaux yi wane ab bëy buy nàmp ci xaj kenn daal di wax ne borom xam-xam yéen laay waxal ndax li dagan dina dagan ñu jël ko tàmbali ku ne di ko yónnee di laajte léegi laaj boobu mu amal leen ban njariñ loo xamante ni boo demee dëkk ba mu dëkk boo ko doon wër ba mu daj doo ko fa gis borom xam-xam yi dañ daan bañ jaaru xaaju xeetu laaj yu mel noonu bu ko nit mësaan wax naan bu nangam amoon nag dañ naan la bàyyil ba mu am nga soog koo laaj loolu mooy nangam joo xamante ni sori na loolu muy am. mais bu dee loo xam ne lu ñu séntu mu am la waaw loolu tudde fiqu tawaqo mooy loo xamante ni al mutawaqaawul qarib ndax dafa am mutawaqa baid ak mutawaqa qarib mooy loo xamante ni lu jege la ci ne lii xëy na mën naa am waaw loolu mënees na koo laaj li kooku di laaj li li li ñu waxoon foofu ci ci melokaan loolu kooku di nàmp bay buy nàmp ci xaj du ko tax a nekk xaj bay lay doon ba léegi bay dagan na même bu fekkee dafa lekk lu xaram lu haram loolu mu nekk du ko taxa moom jëmi boppam nekk lu haram bu fekkee dafa lekk loo xam ni dafa jeexital ci yàpp bi ba muy xeeñ lu haram wala mu koy saf wala mu jël melokaan bi boobaa day dugg ci xukmul jàllaa muy animaux yi nga xam ni ci lu mel ne nag wala xar wala gëlem buñ dee jëfandikoo ñam boo xamante ni dafa am sobe lu mel ne tey ñu leen doon xonte ripaas boo xam dafa am sobe bu ci nekk ñu koy lekk mu dem ba jeexital ci seen yàpp yàpp bi saf ko waaw boobaa moom loo sant sant sant loo wala siise da ngay xaar doo ko rey da koy jël denc ko di ko jox xont boo xamante ne bu set la mu koy lekk ba loolu nekkoon ci yaram bi loolu jeexitaloon ci yaram bi deñ bu boobaa léegi bu deñee dafay daldi làpp dafay daldi dagan waaye du ñu wax ne la mu lekkoon comme moom moo meññ yàpp bi yàpp bi dal day xaram déedéet yàpp bi dafa dagan bu ci lu xaram nekkee loolu wasfu taari lay doon muy melokaan la boo xam ne dafa gaar du melokaan bu sax jamono bu teggee ko dafay continuer di nekk lu dagan naka noonu tamit mu nàmp mu lekk ak lépp lu mu ci mën doon ci lu xaram bu ci melokaan ba nekkee ànd ak yàpp ba loolu dafay tax mu xaram ndax melokaan bu xaram ba ci ànd ci jamono jooju waaye saa bu demee ba melokaan boobu teggeeku ndax du topp yàpp bi yàpp bi moom dagan na da fay daal di wat nek lu dagan legi ak timit wa idaatul mal mu bañal len timit sen suñu borom subhanahu wa taala li nga xamne moy sank alal mu yàq alal ndax li yàlla waxone wala tusrifu inna allaha la yuhibbul musrifin suñu borom subhanahu wa taala bugul ku yàq bugul gaspillage yàq moy jël alal def ko fo xamanteni du àq du yon ci lu bax nga def ko fa donte benn dërëm la àq lay doon waaye bu fekkente ni bu donte benn dërëm la yàq lay doon waaye bu fekkente ni ci kaw xàq ci kaw dëgg la ko nit ki dépensé donte ay milliards la du nekk yàq kon nit ki foog mu am xam comprendre no am notion wu yàq xam dëgg-dëgg yàq lan lañ ci jublu yàq mooy li nit kiy def ci loo xamante ne bi amul àq boobu tax mu def ko fa nekkul lu lu lu tegu ci yoon ci dépensé bi mu ko dépensé loolu boobaa dafay daldi dugg dugg ci yàq te loolu suñu boroom subhanahu tere woon nañu ko ba waxoon ne sax innal mubathirina kaanu ixwaana shayatin nee na yàqkat yi nga xam dañuy yàq al ji yàlla jox jàmmee ñu war koo jëriñoo nee na ñooñu dëgg dëgg dëgg ay mbokk lañ ay ñook ñi ñurool daal méngool mbir mooy yàqkat yi ñook yàqkat yi ñoo nuroo benn façon xeetu yàqin la boo xamante ni tam ñoom ña nga ca ñoo kon ñi yàq di nekk ci niñ di leen yàqal seen dund di leen yàqal seen diine nee na ak ñoom ñoo yem sorewuñu kon yàq googu tamit yàlla daf ñu koo tere kon nga gis ne xadis bi xadis bu màgg la boo xam ne liñ ci gën a jublu mooy li ñu wax ci tàmbale bi mooy jaamu suñu borom subhanahu wa taala te bañ ko bokkaale ak dara te loolu moom mooy tamit li nga xam ne mooy fondement wu yeneen yi ñëw yépp bu fekkente ni nekk na ci nit ki dëgg-dëgg ba dinem ñoŋ yeneen yi ci des dina jàppandi ci moom ngir mu taxaw ci هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله Tasnim online moo leen doon may jotaayu koor membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir Sénégal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bii nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture am ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union. dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam.